boo waxee après heure da yéex a wax wax ci heure ba la léegi xam nga ne laa leen di ñaan fii ñi fi taxaw ñëpp benn mbir dong laa leen di ñaan siège bi nga xam ni moom la coalition bi yor mi ngi fii ci dixième dama bëgg ñu direeku ndànk dem jëli gaay yi indiwaat leen ba fii soog a wax li ñuy wax est-ce que d'accord ngeen xam ngeen lu tax xam ngeen lu tax xam ngeen lu tax mais da ngeen a yàgg muñ da ngeen a yàgg a xeex ñii dee nañu ñii ci géej gi ñii nekkoon ci kaso bi ñi ñàkk nañ seen liggéey fii ci département bu Thiès ñu woo ay nit ñu wax coalition Diomaye président ñu yor siège bi fii ci dixième ñu def liggéey bu mucc ayib tey bu ñu amee lii li ñu bëgg a wax duñ ko yàkkamti nañu dem gunge ñu ndànk ñu dalaas ndànk jëli leen ndànk indi leen fii ndànk wax ak yéen ci ndànk ak tey loolu lañ leen di ñaan léegi xam nga laa bëgg ndànk ndànk temp temp temp temp rek ñu jëli leen mais yoon wi dama bëgg mu tàng jër bu kenn noppi bu kenn noppi ah